wax tour bi naka d' abord pabiade la tudd pabiade waaw ah. ah, ah, fan yi gis nañu ay ay bad di yëkkati naan PS dafa dem congrès après jël falsificateur bu bees yo oh, la moo ci kii sa sa xalaat congrès bi mooy yoon dañu war a def congrès diggante mbay jaam ak amin amin amin tin beng buñ de xëccoo ki ku jiitu hmm. nañ def congrès ku gagné ñu jox la nga dem hmm. waaw mais yaakaar naa buñ defee congrès amin nga koy gagné da koy gañe amit ma ngi ko dàq liggéey mbay ci am du liggéey dara école bi mi jàng mi mi da ko yàq ah. du def dara man Louga laa amit ma xam naa ko bu baax bàyyi ma xaalis mbay ko jur moo dàq liggéey mbay ci am fuuf mbay ci amul lu mu yor fi benn fonction bu mu yor ci Sénégal bu dox amul xanaa ku dox doxuloo daal la man ah. waaye du liggéeyal Sénégal dara defal fi Sénégal dara. mais parti encore parti encore si encore si euh, si est encore gis nañu encore mu ne encore mel na encore mu meloon ay ci ay jamono. non mënu koo melaat du ko melaat moo koy dese yam duñ melaat noonu duñ ko gaaw a melaat. parce que ñii dañuy xeex rek ku daa bëgg a jiitu te ku bëgg a jiitu te bopp nga fa nekkal. Sénégal mën naa ne liggéey ku président bu du liggéey mooy Abdoulaye Wade xam moo fi du commencé ko liggéey ñu xeex comme jóge Macky Sall mu def fi dara dara def ko fi yàq kër jàmbur yi nangu place jàmbur dong la fa nekk def fi leneen. ku mën a parti bi quoi. man de loolu naa ko mais. Hmm. n'est-ce dañ ko fal. par fal bi waragul a jeexal. contrat am jeexagul. contrat am jeexagul n'est-ce pas. Hmm. kon kay war nañ ba contrat am jeex rek ñu soog def congrès. ku ñu war a fal ñu far ko. te hmm. moom xam naa ancien la fa. budul moom it ki nekk Kaffrine. député bi nekk Kaffrine bu dul moom daal di Aminata Ndiaye Mbène waaw ñee ñii ñoom ay nouveau la ñu rek wax moo leen yóbbaale rek pour man daal sama gis gi Aminata Ndiaye Mbène la wala ñu baa ba congrès ba contrat am jeex ñu soog a xool congrès bi ku war a toog rek toog bu dee ci xale yi wala si mag yi kuñ a xam rek moo gën parce que wax ju rafet la wax hmm. biig maa ngi koy déglu Aminata Ndiaye Mbène oh. daal naa ko gisee ah. Euh, est ce que encore gis nga ne encore parti socialiste encore nekk encore nu meloon yu euh, njëkk ya waaw parce que njëkk bu taxaw la woon que gis nga ni bon mun nañu encore dellu fu ñu nekkoon ba jël nguur gi sama benn xaritu député bu fa nekkoon ne nee nañu nee na boo sàggandul comme dafa xaw a tas ñoom ñëpp buñ ñëwoon mën nañ jëlaat réew mi mais comme dañoo tas na sama benn xarit député bu fa nekkoon nee na duñ mën a jël réew mi. xanaa ñu a benn rek ñoom ñëpp ñu ñëw. ñu jëlaat réew mi ñoom xalifa ba waaw gaa yëpp ñëwaat daal bu daañu ñu seet ku ñu jiital daañu jël réew hmm. mais bu dul loolu duñ mën a jël réew mi ndax dañoo tasaaroo. mais est-ce que gis nga ne ñoom encore kii ñëwaat ñoom ñiy dem. ah xanaa ñu toog waxtaan buñ leen boole jubala leen de ñoom ñëpp buñ toogee waxtaan mën nañu doon benn jëlaat réew mi parce que mën nañ liggéey am nañu yërmande mën nañu gouvernement seen gouvernement dara du senn bokk la yi am dara du senn seen biir rek